ngeen jëf CAS di Cheikh Agibou Soumaré mooy ka bi yéene kay yi xëy di ka Vox Populi di ñuy xibaar ci xëtamu njëkk ne premier ministre Sénégal ba woon di Cheikh Agibou Soumaré woolu nañu ko tey jii ci suba ca yoon waa sûreté ñoo ko convoqué tey ci 10 heures le nañu laaj yi mu doon laaj président Macky ci ndax dafa mayoon Marine Le Pen xaalis bu toll ci milliards waxam joojee moo tax ñu woolu ko ndax dañoo jàpp ne ay kàddu yu mën a Diop nee nañu moo ne enquêteurs nañu ko woowal Cheikh Agibou Soumaré déglu ko lu mu leen wax ñu wax ko ko libération dañuy wax ne fa mbiri nar a mujje mi ngi dépendre ci li Cheikh Agibou Soumaré di tontu policier yi lëkkutije nañu xaal yamu doon upp moo mujj ci ay loxom ci ay laaj boppam ca la war tontu tey ji tir bi nañu déferment mi ngi xeeñ ndax fi ñu tollu tembe ñaar rekk a taxaw benn moo di mu setal ab deram taqal deram Birahim ko Vox Populi di xam le li ñuy jéem ci Cheikh Agibou Soumaré muy bëgg ko noppiloo bëgg tëj gémmiñam loolee yoon yoon wi état bi jël mu di di yóbbu nit ñi pëlis ak di leen tëj l'observateur ni mu ko gisee ci xëtamu njëkk moo di aw doxin wu ànd ak risque keneen ko gisee noonu yéenekaay bi nee nañu mooy docteur Alassane Ndaw dip enseignant chercheur ci université Gaston Berger bu Ndar moom docteur Ndaw li mu jàpp moo di li nguur gi di fexe moo di di xupp nit Hadjibou Soumaré bind ne gàtt sa gàtt sa fala gaañu toll ak Cheikh Hadjibou Soumaré Cheikhna Alassane Sall mi joxe xalaatam mi ngi wax ci xët mu njëkk Le Quotidien ci jamono moom mu ngi leeral ci journal bi li waral tekkam ji ci politique bi wax na xalaatam ci coowal troisième mandat bu Macky Sall bi ñu jaabaa jongi ci réew mi wax na li mu xalaat ci réew mi maître Nafissatou Diop nee na ci politique léeg-léeg noppi maye patt ji dafay gën wax ji bëgg a liggéey bu baax ak bëgg a liggéey lu baax mënuta ànd ak politique bu bari candidature Macky Sall 2024 maître Nafissatou Diop nee na bu ko Macky bëggul sax askanu Sénégal ñoo ko ciy obligé te dara tënkul Macky ngir mu doon candidat ci élection présidentielle 2024 yi ndax am na ci droit te bu boobaa ñaareelu quinquennat lay politique di ca Kaolack mi ngi xam ne ci direct news ne la woon woon na léegi dafa am beneenub leadership bu bees bu fa juddoo ka ko fay incarné mu ne mooy maire bu Ndiaffate honorable député Aïssatou Ndiaye am Ndiaye ko ko wax xel dem ci njëgi ci marché bi sonné national di ñu xamal ne président national ba ñuy def démb ndajem conseil des ministres sàkku na ci gouvernement bi ñu def seen kéemtalaay kàttan ba jaaykat di jaayee njëg yi ñu leen sant fexeet dañoo jëm ci weeru koor te it ñoo ngi ci carême ci carême googee mbokki quartier yi nekk anki dina kay mi ngi ñuy wax taxawaay quartier yi yéenekaay bi nañu ñetti paroisse ca dëkk ba président conseil départementalu dëkk ba Mamadou Kassé jàppale na leen ci carême bi boole ci kit bu mu jébbal abbé Florent ngir gunge leen ko ci journée mondiale de la jeunesse yi war am ca département bu Goudiri te lu ko jiitu noo net taxe woon ci xew-xewu diine bay am ci Médina Gounass mu di daaka ba ñi ñuy tàggete deewuñu nañu koy dundee moom la l'observateur xëy di dund ak ñun pil yéene kaay bi ay témoignage yu yéeme te daw yaram la ci am ca témoignage yi bokk na ci bopp Aysatu Njaay mi leen wax ne ay mbokkam dañoo daje doon ko jooy jàpp ne deena te booba fekk na mi ngi dund l'observateur dem ci ba ni ñu nettali histoire benn paa bu ñu jàppoon ne dafa faatu bu yóbboon ko ca margo ba doon ko sang yéene bi nañu ba mu tisoolee ca la ñuy soog a xam ne ki ñu bëggoon a sang sang suuli faatuwul abonné leen ci suñu youtube